allo. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. yaay yu waaw. yaay daara. alhamdulilah soxna Hadja ñu ngi leen di ziara bu baax. ñu ngi lay nuyu di la ziara. jërëjëf jërëjëf yal na yàlla mu ziara di jàmm ci rajo daaray lislaam. amiin amiin. comme ni ñu ko waxee woon rek euh, semaine bee ñu génn. temps bi njatoon ñu mu xatoon lool ba li nga amul yéene wax ka yépp yàlla dogalul mu euh, euh, sotti ñu fas yéene ñëw ñuy lay euh, defe naa keroog Fambaw mbow présentation bi mu defoon macha allah doyoon na waaye dañu dolli ñëwaat rek di wax mbokku julli di mbokku taalibe yi nii kii di wax ak ñun mooy Pape xalifa Ndiaye bu soxna xadis yi bu Khalifa Ababacar yal na yàlla yokk leeram amiin amiin moo ñu waa Asfiya yi. ngeen xamante ni muy site boobu nga xamante ne ni ko maam faa waxe woon kenn dootu laajte bu site boobu ndax àddina wërngal képp la ñuy déglu site bi di ko seetaan information yoo bëgg a xam ci bépp këru diine rek boo duggee ci site boobu di nga ko fa am di nga ko fa am. Euh, waaye duñu def lu dul bàyyi leen ak Pape xalifa moom ci boppam mu ñëw ak ñeen ci site bi ak lu waral site bi ak duggam tey ci rajo daaray lislaam nga xamante ne àdduna bi yëpp ñoo koy déglu euh, ba xam lan mooy euh, tey lan la soxlo ci lu jëm ci wàllu site boobu ndax comme mi ngi ci micro bi dañ leen di bàyyi rek ak Pape lislaam dalal ko ak jàmm ak salaam yox ko bi nag mu tegal ñu ko ci loxo waa yi yépp Pape bismillah rahim in the name of God the merciful the compassionate الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا بدينه وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا برسالته وأبو العباس أحمد التجاني ممد كل أولياء الرحمن معترفا بولايته وشيخنا شيخ الحاج مالك عليه رضا المالك متمسكا بأزياله مبكي جلت يني دغلو تي ci PAT ci New York ak ci États-Unis ak ci àdduna bi yépp à travers internet di diñu déglu ci Sénégal ak dans le monde entier ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu aq di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di ñaan yàlla fépp fu immigré nekk di doomu Sénégal di jullit wala di doomu Afrique di daan seen doole bàyyi bàyyi seen réew naka yàlla doon junjee ci alquraanul karim ca suratul quraysh li ilaafi qurayshin ilaafim rixlata chitaai wa sayf yàlla di melal ni immigration waa quraysh ñoom ñoo ko daan def di yàlla di melal ñaari saison foofu achita wa sayf mu di hiver ak nga xamante ne winter ak summer nga xamante ne moom la waa Quraysh daan def di émigré di jóge mag di dem siri di dem ind di dem ci dëkk yu sori di jël ay marchandises di dem ci marché di daan seen doole yàlla di melal nag immigré yi ci sar boobu mu nekk saar bu am solo ci wàllu ñaan ndax xalifa bi Cheikh Serigne Mouhamadou Mansour dafa am lu mu daan ñaanal immigré yi mooy yal na yàlla dafa leen mucc ak mos te boo xoolee mucc ak mos mooy alladina ataamahum min juuin wa amanahum min xawfin mos gi mooy li la yàlla di wërsëgal nga kay yóbbu sa njaboot mucc gi mooy la ngay nekk di daan sa doole danger bu nekk nekk ci yàlla mën la sàmm arla ba nga mën a delluwaat ci sa réew Sénégal yàlla na ko yàlla def jaarale ko ci rajo bi nga xamante ne tey mooy daara yi lislaam tabaarakallah suñu ay yaay yu baax ñu leen di nuyu di leen ziar ci studio bi di yaayu daara di ko ñaanal yàlla gudd fan ak weer moom mi nga xamante ne tey baatu yaayu daara rek dafa symboliser lépp ndax moom lay taxawaayu maam Fawade Wele ak maam Jaaru Buso taxawee woon tey ba yàlla may leen maam Cheikh Alxaaji Malik ak Cheikh Ahmadou Bamba tabarakallahu nuy waale soxna Faatumata Wade Wele mbow bi nga xamante ne moom moo koy taxawu ci studio bi nuy waale soxna mami ci assistance beeg coordination bi moo mel ni ñuy am mbégte lool tey tabaarakallah ginnaaw bi ñu yëkkatee suñu kàddu ci kilifteefu xalif général di Tidiane Cheikh Sayidi Ahmed Tidiane Cherif al Maktoum di ko ziar di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér mottali yéeneem ci njabootu kër maam Cheikh Al Hadj buñ ko nuyoo nuyu mboolem usratul malike bi nekk ci États-Unis yëpp buñ nuyoo suñu kilifa sëriñ Mansour si Dabbaax nuyu sëriñ Sidi Ahmed si Mouhamadul Habib sëriñ Alioune Badara Sy ak soxnaam ziara bu baax a baax ak mboole mi ñuy eh, déglu yépp ñuy ñaanal daaray lislaam tey mbégte lañu am ay soxna wàcc seeni nelaw teg seen tànk fa suñu maam xadijatu bintu xuwaylidin tegoon fa ko sumayya tax eh, sayi situ eh, sayidat sayida sumayya keroog nekk premier martyr ci biir l'islam tey nga gis ñoom ñu taxaw taxawaay bii ci biir New York ak ni mu mel ngir mën a dimbali immigré yi ngir mën a dimbali ndaw ñi ñu mën a fexe ba xam ni que am na ay valeur yoo xam ne tey loo tukki tukki la maam Cheikh Alhaji Abdou waxoon ca Paris ñëw ne immigré yi bàyyi leen xel ni yàlla nekkul Sénégal kese bu tax ba bu ngeen ñëwee mel neneen nu ngeen waruloon mel jàpp leen ni yàlla mi ngi fepp kon loolu mooy wet gore wetaliku gore kon daara lislaam dafa ñëw ngir dimbali jullit bi man ko fexe ba mu mën a delluwaat ci valeur yi mu am rawatina nag ñun valeur yi ñu am ci biir suñu réew Sénégal nga xam ne macha allah la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daan wax ni yàlla bu xeebee li mu am Sénégal dootu ko am feneen macha allah jàkk yi koor bu jotee nga gis macha allah tafsiri alquran yi gàmm yi loolu lépp ngir mën a xam ne tey lislaam bi am na doole boo xamante ne tey ci réewu Sénégal nee na bu sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon de nee na bu doon ñëw tey Sénégal fenn la fay ñëw jublu muy fan Tiwaawan ñu ñëw nag tey nag ci turu asfiyahi point org nekk tey outil de communication boo xamante dañ ko teg au service exclusif de Tivaouane au service de l'islam mu ñëw ngir tey mottali lenn la mag ñi amoon ci yéene ndax dañuy wax ni yàlla buy wax dafay waxee ci ñetti fréquence dañuy waxee nag euh, incha allah waxtaan bi ci niveau boo xam ne kiy déglu tey nekk ci extérieur dina xam ci fan la ñuy waxee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ni de leen wax ak nit ñi kéemtalaay seen lan dég dégg te comme que nag dañu nekk ci jamono internet jamono technologie moo waxtaan bi dañ koy fexe ba indi ko ci niveau boobu niveau boobu nag mooy lan yàlla suy wax ci alquran yàlla dafay émetre ci ñetti fréquence ndax boo demee ci rajo di nga ci fekk li ñu naan onde courte di nga fekk li ñu naan onde moyenne di nga fekk tamit lu ñuy wax FM ñetti onde yooyu yëpp dafa am niveau boo xamante ne ki mën a capter wala ki nga xam ne appareil moom moo mën a capter kooku moom moo koy mën a dégg yàlla nag di waxee ci niveau boo xam ne dafay toll ak ak ak moom kooku la ñuy wax onde supérieure foofu nitu yàlla yi ñoom ñoo fay tibbee euh, awliyaaw yi ak ñi nga xamante ne mooy anbiyaaw yi beneen niveau bi nag mooy ci diggante asamaan ak suuf foofu la yàlla di tibbalee philosophie yi fa lay tibbalee médecin yi fa lay tibbalee képp koo xamante ne al ulul albab waaye niveau bi gën suufe nag yàlla di ko waxee di wax ak ñi nga xam ne tey ñu ngi leen di ñaan ñu utiliser seen xel niveau boobu nag mooy niveau niveau bi nga xam ne moom moo gën a tuuti moo tax bi yàlla di yónni si yiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla préparé woon na tey rajo yi télévision yi internet bi ordinateur yi ndax ba muy yónni sayiduna muhammad keroog ba maam cheikh alxaaji malik nee na keroog ba yonente bi nekk ca xaarul xira daan def li ñuy wax méditation spirituelle di daw màkk dugg ci biir xuntuma di weetal boroomam di fa ñaan yàlla fa la ko jibril alayhi salaam fekk waaye ba jibril ñëw yi dafa xëcc yonente bi bokk ko bokk ba mu ko bokk moom la mam Cheikh Alxaaji Maal di tënk naan iskarrara alxatta maratin yaquula la xoqra bismi rabbika anta alxaatimu nuzumi jibril alayhi salaam fekk yonente bi xëcc ko bokk ko ñu ne bokk boobu yoon Jibril doorul woon Sayyidina Muhammad déedéet waaye ci dégg-dégg jamono daf ko doon formaté ndax ordinateur bi nga jël jënd ko soo bëggee donne yi dugg ci biir danga koy jël formate ko tënk ko ndax mu mën a am capacité wu dékku li nga xamante ne moom la ñu war a dugal ci biir kon Jibril dafa ñëwoon pour formaté yonent bi xam ne daf koy jële ci Muhammadul Bachar yóbbu ko ci Muhammadul rasul ndax yonent bi tamit ñetti niveau la am dafa am muhammadu nur muy lan leer bi moom la mam chal xaj ma di tënk ca muhammadu nuru abdallahi cheybata hashimi di la indil foofu leer bi mu indi la tamit muhammadul bashar mooy xul innama ana innama ana bashurun mislukum man de nit laa ni yéen waaye nag li may wuuteeg yéen nit ñi mooy lan yuuxa ilayya dañ maa dee te yéen kenn deewu leen kon foofu moom mooy muhammadun rasul moom la mam si alxaj malik di tënkaat ci biir tey siir ci ñetti mu ya nurun minan qad aw hikaman nurun axaata bihi nurun mubinun ci ñetti niveau yi nga xam ne la sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa am kon bi jibril ñëwee dafa ñëwoon pour formater yonente bi ngir ngir capacité bi mu koy fas dugal ndax li ko fas indi lan la alquran alquran nag bu ko yàlla wàcce woon en vrac ci àdduna bi àdduna bi tas ndax leeru alquranul karim bu moo gën a am doole misil yi ñuy wax tey bu si benn wàccun ci kaw suuf àdduna bi tas moo gën a am capacité doole cent vingt quatre mille fois bombe atomique yoloolu lépp nag yàlla tënk ko nag ne kon du ma ko sol yonent bi ndax bu ma ko solee ci état wu nit rek yonent bi explosé jibril ñëw nag ngir mboq ko pour lan mën na jël Eh, yaramu malaykam diw ko ci yaramu nitu yonente bi yonente bi génn ci yaramu nitam jaxasoo yaramu malayka yàlla roof ko alquranul karim mu mën a nekk nag ci capacité wu cent vingt quatre mille giga moom la ko jibril alayhi sol ba mu ko ko solee it moo tax bu jibril daan ñëw di wàcc alquran sayiduna muhammad day xonk cur day toog di waxtaan ak saxaaba yi jékki-jékki rek ñu gis ni mi ngi commencé di xonk ndax lañ koy sol buñ ko soloon beneen nit kooku kooku explosé kon waajtaay boobu yàlla waajoon siju sayyiduna Muhammad ngir indi alquran ndekete mooy loolu it mooy dellu ci salaatul fatih bu ko yàlla wàcce woonu en vrac ci kaw suuf leer bi xajul ci kaw suuf waaye dañ koy fujël di ko segg capacité bu nekk mën koo dékku alquran di dox ñu koy def ci ay doj alquran di dox ñu koy def ci ay xeer di ko def ci ay der ba jamono di ñëw yonent bi génn àdduna abu bakrin siddiq seydna omar gis ne juróom ñaar fukki saxaaba yu wattu woon alquran ñu ngi génn àdduna mu ne kon nañ ko boole def ko kon mushaf woote na commission jox ko teg ko ci loxo seydna osman ibnu afan kaab ibnu zubayr ñoom ñu toog ak ñi ñu àndaloon ñëpp tënkal nag alquran ba def ko nag kaamil bu ngeen demee ci internet di ngeen gis kaamil bi njëkk bi ñu njëkk bind mi ngi pesé six cent et quelques kilos ndax ni kayit yi toll woon jamono boobu ak na encre ba meloon ñu dem nag ne léegi nañ ko nañ ko nañ si bindaat yeneen tas ko ci capital islamique yu mag yi yóbbu Syrie yóbbu Égypte yóbbu fu nekk tey nag jamono di dox technologie bi di continuer xajjatul widaa bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujjee def fala la lancé technologie ne leen nag képp ku teewul na ngeen fexe ba jotale leen message bi ndekte yonent ba leen di wan ni relais bi day continuer nañ dem ba daaray lislaam na toog di jotale message yu sayiduna Muhammad tey loolu di dox ba imprimerie ñëw ak kan Gutenberg loolu continuer ci vers les années mille huit cent mille sept cent loolu ñëw imprimerie ñëw ñu jël kaamil boobu di ko di multiplier kaamil yi njëkk defar ci àdduna bi matul woon sax conteneur jamono di dox ñu koy def cassette di ko def euh, CD léegi dépassé nañu sax léegi CD clé USB léegi dépassé nañu sax léegi clé ñu ngi indi 3D alquran di toll foofu nag bu alquran tolloo foofu nag te nit ñi tolloowuñu ak alquranul karim kon il faut que kon mise à niveau am moy ko julit ci ño wara delu ci science alquranul karim xamne ne alquran yàlla indiwu ko pour julli woor joxe joxe azaka kesse way daf ko indi ngir tankal doomu adam yi dundam ngir mu meuna xam naka lay tegoo ci yoonu siratul mustaqim indi la li aduna tank yeb indi lako ci ben téere jox ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci visé bobu nga xamne ne alquran am na ko taxawaay boobu la maam Cheikh Alxaaji ci liggéeyam moom tamit xam ni jamono ngi ñëw amoon xew-xew bu mag bu amoon tamit Sénégal ndax weeru koor dafa jot mag ñi di yëgle weer bi feeñ na ci lan télégraphie jamono boobu muy technologie bu tubaab bi indi weerante am fa yenn mag ñi ne déedéet waruñu yëgle weer bi ci télégraphie ndax loolu bidaa la yonent bi wàcc ko fi ñu indi si weerante ulamaawu afrique ak sénégal yépp dajaloo bi coow li nag bëree mam cheikh alxaaji malik am ñu dem ba bind xaaxira mam mam cheikh alxaaji malik ci dégg bi mu déggoon jamono le paul marti waxoon ci l'islam au sénégal nee na de tous les chefs religieux Al-Haji Malik est le plus instruit, le plus pédagogue, le plus intelligent et, et le plus beau. Masha'Allah, oui, niveau bi mu toll woon ci wàllu dimension intellectuelle am mu gis ni que jamono tey may na nit ki bu woor jotee ñu koy yëgle ak lan télégraphie kon mooy fax yi mooy internet bi mooy lan rajo yi am ñu dem bind ba xaaxira ne leen de ah am nañu fi wax ni télégraphie de mën nañ ci yëgle koor ñooñu bi ñu demee université al azhar bu ñu ne leen effectivement jamono nangu na ko Cheikh Alhaji mun mu leen nag ci ba muy lay l'islam contrôle technologie la lislaam nangu na même bu dee yéefeer tey micro yi ñuy utiliser yëpp kan moo ko kii defar yéefeer studio bi ñu nekk daare l'islam kan moo ko euh, defar yéefeer a ko jël defar ko waaye tey ñu ngi koy utiliser pour lan l'islam kon l'islam kon nangu na loolu Cheikh El Hadj am foofu ndam ndekete boobu la professeur Samba Gaye waxoon ca thèsam mu ne Cheikh El Hadj Malick précurseur des nouvelles technologies de l'information et de la communication kon bu jamono tolloo foofu kon laaj na tey ñu diffuser message bi ci li nga xamante ne jamono moo ko laaj ci foofu nag la asfiyahi point org tamit gis ni am na waar bu mu war a béy ci biir toolu maam Cheikh Al Hadj ci biir toolu tarixa Cheikhuna Tidiane mu jël liggéeyam ginnaaw bu mu sosoo ci kër Serigne Babacar si ci ndigalu Serigne Sidi Ahmed Sy bu sëñ Babacar Sy en 1996 boobu ba tey ñu si def ay jéego ci wàllu daara taxawal fa daara ju mag tuddee ko daara kër sëñ Babacar mu am incha allah jardin d'enfants islamique bi daarul Habibi wala war a démarrer ñu ni amit programme social weeru koor bu nekk ñu investir ci prison yi hôpitaux yi fépp fu jaamu yàlla nekk ci réew mi ñu fexe ba di séddale ay junni junni junni ndogu yu tuddee ko ndagu de solidarité yëpp ngi ci biir asfiyahi point org ñu amit volet boo xamante ni communication la ndax dañu gisoon ni site internet yi daan doxal ci euh, Tiwaawoon yu ci bëri dafa am fu ñuy yem ñu nekkoon jamono laajutul kenn ku nekk nga toog ci sa biir roq na ko sëriñ Abdou Aziz Al Amin al waxee ne ku nekk mën nga am sa sëriñ diw moom a jox wér diw moom a jox wér waye bu liggéey jotee nañu ando ñu ñëpp nek ben xamni le Pape Maodo ci Ibn shal hay Abdou ay si dabax waxon ni ñom kenn waru leena gis ben jëm lañu wara gis à kan travers ñom mam Cheikh sayyid al hajj Malick tamay mooy li al qur'an wax ni laysal birru أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن yàlla nee na mbaax du kii féete sa bopp penku du féete sa bopp sow waaye mbaax mooy ñëpp gëm yàlla kon mbaax mi du sëñ Mansour moomu jox wér du sëñ Ben Mansour moomu jox wér du sëriñ Maodo moo jox wér mooy ñun ñëpp ñu àndandoo ci l'essentiel muy kan Cheikh Al Hadji Malick Asfiya yi def si jéego bu mag 2009 bi mu juddoo ñu couvrir gàmmu gi boobu ñu ngi nekkoon ci Paris yàlla def boobu nag ba six heures du matin ñu synchroniser def duplex boole nag takkusaanu Seydi Jamil champ de course bu sëñ Ahmad Tidiane Zawiya Cheikh Al Hadji Malick sëñ Maodo sëñ Bay si Mansour jumaa sëñ Babacar sëñ Mansour sëñ abdu ñu synchroniser loolu lépp def ko duplex ba fu immigré nekk mën ko xool 2010 ñu dem euh, Sénégal investir ci gàmmu gi dem sur le terrain indi suñu ay moyen bopp MRA loué ay matériel taxaw fexe ba képp fu internet nekk premier gàmmu gi ñu ngi amoon soixante mille yu ko xool ci àdduna bi deuxième gàmmu ñu am cent cinquante mille tey mi ngi àgg ba ay deux cent mille auditeur couvrir am aussi banque de données yoo xam ne tey fu nit nekk ci xadara bi mën nañ la yónnee message ci benn minute nga mën a jot li xew di jël événement yëpp di ko couvrir en direct ziare général ñu bëri dañ daan toog Tivaouane du ñu xam nekk extérieur du ñu xam lan moo xew euh, Tivaouane da nga daan dugg internet boo bindee daayira Tijaan doo gis sax turu kër gi da nga daan bind tamit xilaasu zahab doo gis benn téere maam Cheikh Al Hadj Malick asfiyahi point org tey boo demee tey actuellement archive yi fa nekk indi nañu gàmm bi sëñ Cheikh daan toog ak sëñ Mansour indi nañu wax ya maam Abdou daan wax ca 1980 en vidéo bu ngeen fa demee actuel archive yi ñu ngi see banque de données yoo xamante ne tey yéene boobu mooy am na web tv bu ñuy euh, pare tij yi nga xamante ne day am ay kuuru fiq am kuuru tafsir yooyu yëpp tamit incha allah dina amaale web rajo tamit taysir fm net yooyu yëpp dinañ fexe ba daaree l'islam am si place bu yaatu de de diffusion ak yeneen yoo xamante ne incha allah am nañ ko yéene def ko waaye loolu lépp macha allah ñu si sant tamit di ci encouragé ki nga xamante ne tey moom moo ko moom moo diriger équipe boobu yëpp ñu teg ko ci liggéey boobu ci loxoom mu di sama rak sës ci man rek te duma rek di Mame Momar Ndiaye ñu koy di caatu soxna xadisi bu bu sëñ Babacar di ko def ak liggéey détermination gàmmu Tiwaawan boo ko gisee ni muy futee ko buñ la waxul kii sëtu alaaji Maalik la doo ko xam day taq rëpp niñ koy waxee nekk sur le terrain ànd ak équipe yi dugg futeeku ngir dimbali émigré yi mën a xam li xew euh, Tiwaawan lépp nag ñu koy def nag ak moyen bo personnel amul kenn ku mën a taxaw ni tey man may financer asfiyahi point org ñu sant ñi nga xamante ne tey ñu ngi am seen yéene bu rafet di ko taxaw jàppale ko te asfiyahi point org dafa indépendant dafa taxaw pour boole njaboot Cheikh Xaaj may taxaw ci unité amul fenn foo xamante ne tey nit mën na ne asfiyahi fii la bokk asfiyahi Tiwaawan moo ko ki Cheikh Xaaj ak tamit l'islam bi yëpp lu xew tuuba sëñ sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke yal na yàlla may ko gudd fan may ko wér ñu jël ko diffuser ko Kaolack Niassène Thiénaba ñu jël ko diffusé ko lu ca Medina Gounass ñu jël ko diffusé ko lu xew ca waa kër maam Cheikh Al Hadj Oumar ñu jël ko diffusé ko ba mbokk murit yaa ngi ñuy woowee daayira Espagne bu euh, murit yaa ngi ñuy woow fu nekk nañu kontaan nañu ci liggéeyu asfiyahi.org ndax dem na ba nekkatul tarixa moo ko nekkatul kër moo ko moom l'islam bi la fi nekkal muy l'islam bi yëpp ndax maam sëñ kër Si radiyallahu anhu ba tubaab bi ñëwee ne ko ñun de dafa am gëstu bu ñuy def ñu ngi jóge université al Harvard bu bu États-Unis archive yaa ngi foofu dañu bëggoon nga wax ñu nag tey ban tarixa moo gën Sénégal mu ne leen ah yéeni dama leen di laaj ngeen tontu ma ci wàllu administration policier bi gendarme bi sapeur pompier bi koor yooyu yëpp ban corps moo ci gën tubaab bi ne ko ah ñoom ñëpp benn drapeau la servir muy la drapeau national sëñ Babacar ne ko ñu ne tijaan bi murit bi xaadar bi laayeen bi ñun ñëpp benn drapeau la ñuy servir muy lan drapeau l'islam tabarakallahu asfiyahi point org ñëw pour defaraat jikko yi ñëw pour investir rawatina nag immigré yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi yëpp ñu ci lancé appel wax leen ni seen outil la seen outil la te nit ki nag li nga moom doo xaar kenn nag jiitu la si événement yi ñuy couvrir yu ci bëri dañ koy def lan gratuitement direct yeeg yëpp te tey laaj na ñu am benn autonomie sur le plan matériel te taxawaay boobu yëpp mooy kenn ku nekk la ngay toog di tijji sa internet di gis asfiyahi.org di ko bége même bu dee benn dollar la boo koy jël do ndax ku dem foofu daara ja dugg biir kër sëñ Babacar ndax Richard dafa am lu mu symboliser tey sëñ Babacar si fa la nekkoon boobu mi ngi dëkkoon ci rue Félix Faure gouverneur war a ñëw seet si ko sëñ Babacar ci éducation bi mu amoon Saint-Louisien ndax moom intellectuel la jàngeen na post ci mille cent 1910 nekkoon fa commis am na sax xasida boo xam ne mi ngi ko bind ci français wolof وحيثما لقيت منه واحدا يقول ما ابيان يكون شاهدا أجي لدى وداعهم معروف نونو وويوي من بينهم معروف لولو يب تبارك الله برواني ديماشون انتلكتيولو سرين بابا كرسي دادي أبو فن recevoir gouverneur bi gouverneur di dem nag mu ne jot na ma am kër nag ndakaaru si la benn mag gént maam Cheikh Alhaaji Malik ci guddi gi mu ne jot fii de muy doxantu ci benn toolu ñàmbi mu ne fii de lay wutal Babacar kenn mag mi dem wax ko ko mu dem laajte pàkk boobu jënd ko muy quatre vingt dix neuf rue Amadou Assane Ndoye nekkoon quatre vingt dix neuf rue Thiers fa la taalee adduna bi daan fa def juróom benn weer maam Cheikh Alhaji Abdou xëy na ñëw fu big suba teel mu ne ko Abdou big de la fi Cheikhuna Tidiane jóge kon li mu symboliser tey ci mission mooy que fa muy Asfiyahi di diffuser tey macha allah daara ja nekk fa doonawaayu sëñ Babacar la abi bu sëriñ Mbay Si Mansour waxoon ne yu ci bëri fii mooy balluwaayu li nga xam ne tey du bëri mi ngi doxal kër maam Cheikh Seydi El Hadji Malick tabarakallahu loolu muy taxawaay bi asfiyahi.org di liggéey tey ci ummatul islamiya bi di ko liggéey ci diaspora bi yëpp tabarakallahu loolu yëpp nag muy lan diine ndax nit ñi buñ leen dimbalee ñu xam seen fiq la maam Cheikh Alxaaji Malik daan wax képp ku mu bokkal jamono nit ñi nañ leen wan yàlla bañ leen a wan suñu bopp ndax buñ leen nëbbee yàlla wan wan leen suñu bopp dañuy dem ba ñun la ñuy jàppee yàlla ñu yee nit ñi ci loolu taxawaay boobu la asfiyahi point org bëgg taxawal fexe ba mu nekk outil émigré yi te immigré bu nekk ñu ngi lay lancer appel ci ñu taxaw si sur le plan matériel soxlawuñu dara leen lañu soxla mooy que matériel ñu ngi siy lancer appel ñëpp moo xam caméra la moo xam ordinateur la moo xam euh, vidéo projecteur la lépp ñu mën ko teg nag au service d'asfiyahi point org ndax incha allahu taala am na jéego yu mag yuñ ciy jëm ci rajo télévision mën a diffuser dans le monde entier gis ngeen léegi ko am sax iPhone am na application boo xam ne boo duggee ci SUI port rek da ngay am léegi application iPhone nga xam ne foo mënti rek message bu dugg rek da koy jot ni ndax foofu moom la jamono toll te dinañ dugg ci bouquet yépp incha allah bouquet satellitaire yi ñu mën a diffusion bi yépp ngir loolu mën a jëm ci kanam lépp nag tabaarakallahu ñu si ñaanal xalif général de de Tidiane sëñ Mouhamadou Mansour si borom daara dafa daan taxawu ci asfiyahi daf si daan taxaw lépp lu muy def ne dugalal leen moo ko ci internet bi ñu ngi may woo dim ndax xam na fi jamono tollu moo taxoon mu daan waxee ci foofu ba bi muy mujjee génn àdduna dafa jël archive yëpp yëpp yëpp yëpp lu mu mës a def ci vidéo yónnee ñu ko bis boobu sama rangoñ dafa doon tuuru mu ne nag nañ ko defal benn film ñu tuddee ko la dimension littéraire de borom daara ji film boobu bañ ko commencé diffuser sama xel dafa ñaaw ñu toog jékki-jékki rek ma yëg ni jamono biñ ko liggéeyee de sëñ Mansour joxe si ndigal am na lu mu yëgoon ndekete boobu mi ngi wuyu ji boroomam film boobu ñu ngi koy def en coproduction ak euh, télévision yu mag Sénégal incha allahu taala bu pare bu àggee rek dinañ ko diffuser ci àdduna bi yëpp ci ndigalu xalifa bi sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ak yeneen projet yoo xam ne yi am na yéene taxawal ko diaspora bi yëpp ci wàllu bind mag ñi firiwaat xasida yi léegi téere yu bari ku dugg léegi internet ding nga fa fekk fiiri nañ ci xilaasu zahab fakihatu tulaab téere mag ñi lépp nag ba pare nag mag ñëpp maam maam Cheikh Alhaaj Mansour sëñ Babacar Alhaaj Abdoulaye si Dabax Alhaaj Habib Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha si Jamil ba ci xalifa bi sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si Almaktoum lépp seeni œuvre ñu fexe ba jël ko diffuser ko wane ko ci àdduna bi yëpp loolu tabarakallahu moom la asfiyahi point org doon taxaw ci kër sëñ Babacar si ñu ngi bàyyiwaat kàddu gi ak Euh, yaayu daara dégluwaat ko ci kàddu yi. Euh, jërëjëf Pape Khalifa macha allah euh, fa tubarkàlla kaar ku déglu tey dinga nga dégg xam ni doomu daara wax na ci daara ji ñu di la gërëm bu baax a baax di la sant. di lancer appel bi rek képp koo xamante ni yaa ngi déglu rajo daara ji rek ñu ngi lay lancer appel ci lii nga xamante ni waa asfiya yi soxla nañ ko muy matériel. Euh, comme ni ko Pape Khalifa waxe léegi xam naa ne jeunes yi nga xamante ni ñooy jeunes tijaan yi nekk fii ak jullit yëpp ndax asfiya yi jullit yëpp la fi nekk euh, te asfiya yi fas yéene incha allah link ak rajo daaray lislaam ba nga xamante ni daaray lislaam àddina yëpp dinañ ci gis seen bopp kon ñu di leen sant bu baax a baax di leen gërëm euh, ñuy laaj rek Pape Khalifa mhm. képp koo xamante ni am na ndimbal loo xamante ni fas yéene na leen ko dimbali ñan lay contacter. waaw euh, ñi nga xam ne dañu am yéene incha allah mm-hmm. dimbali asfiyahi point org bu ñu duggee ci site bi rek dinañu gis mm-hmm. ndax euh, moyens yi ñu leen mën a bu dee ki nga xam ne moo nekk Sénégal mm-hmm. tey lu mel ni wari mi ngi foofu ku xam ne mi ngi nekk extérieur tamit monogram mi ngi fa western ngi fa mhm. bu ko defee numéro yi yëpp mi ngi ci biir site internet bi mhm. ku ci mën a woote it 77 343 07 07 muy numéro bu kii Sénégal 002 0 343 07 07 07 07 waaw waaw mhm. wala 76 875 75 75 76 800 soixante quinze soixante quinze soixante quinze ñetti soixante quinze waaw waaw boobu mhm. tamit ku ci woote tamit Sénégal ñi si des nag nga xam ne dañuy dugg ci site bi yëpp ku tijji site bi rek di nga si fekk incha allah mhm. faire faire un don à asfiyahi point org mhm. di fekk mboolem foo mënti nekk rek tur euh, tur yi nga ko war a yónnee di nga ko fa fekk bu dee da nga nekk extérieur bu ko yónnee di nga fa fekk turi bu ko defee loolu lépp incha allahu taala ak ñoom soxna mami yi nekk États-Unis tamit ñoom ñëpp Euh, relais lañu tamit ci foofu mm-hmm. ñoom mën ñu jokkaloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy taxaw incha allah tamit mm-hmm. ñu ngi lancé appel tamit ci xew-xew ndax dafa am loo xam ne mbégte la muy tey ñuy wax zawiya Cheikh Seydi El Hadji Malick ci fan New York waa Sénégal di ko waajal sëñ Cheikh Ahmed Tidiane di ko waajal sëñ Abdou Aziz Al Amine di ko waajal sëñ Maodo si Dabaax di ko waajal sëñ mbay si Mansour di ko waajal laaj nag keroog la sëñ Mansour si baax wax ne képp ku nekk bul xeeb dara benn dollar dix dollar lu waaye am jàppale ko tamit zawiya boobu incha allah asfiyahi point org fas yéene na si def liggéey bu mag ci wàllu communication ca Sénégal ak avant ñuy nit ñi nit ñi di ñëw bu ko defee loolu tamit ñu ngi koy bàyyiloo xel nit ñi ñu euh, kiyaal bàyyiwaale ko xel bu baax a baax foofu ci biir New York. waaw ah, léegi mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ah, dañu bëgg ubbi ligne bi rek man bu doon cinq minutes rek. Ah, hmm. ñi ñi nga xamante ni rafet la nu lii nga xamante ni moom la fi Pape xalifa bu bu soxna xadis yi bu soxna bu Serigne bu Khalifa Ababacar radiyallahu taala ñu woote. joxe euh, seen euh, participation si lii nga xamante ni moom la fi pap Khalifa wax léegi mën nañu woote ci 212 219 9695 212 219 9620 212 219 9629 212 219 9634 kon képp koo xamante ne rek euh, Pape Khalifa am na ku nekk ci ligne bi ñu xool kooku ah. kan la waaw daara l'islam bisimilah asalaamaaleykum waa salaam wa rahmatulah. yaay daara ji. la bayka. man la sëñ Mor Ndiaye président bisimilah euh, Pape Khalifa kii mooy euh, euh, Talla Ndiaye mooy président mhm. daayira Mali Seydi Haj Malik bu góor bi nekk fii ci New York. moom moo dugg noonu ñu bàyyi ko. ba xam waaw mhm. bisimilah président. Mhm. asalaamaaleykum. waaleykum ah, salaam Pape Khalifa ñoo ngi lay nuyu di la siyaar. جرجف جرجف سنمر جرجف تبارك الله وقت علوي تبارك الله ورفعت يلا يلا بلي خم خم بتبارك الكل امين امين امين امين بارك سيدي ابو بكر سلام بارك الشيخ سيدي الحاج مالي بجي يونت بي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم امين امين امين فريما خل سدنا خل دالنا جرجف جرجف يو سرك ان داو ني ملنا يين يلا يلا بارك لين جرجف bali mag ñi bëggoon lépp ngeen yeggale ko te ñun ñëpp nu fekke ko. amiin amiin amiin amiin ja fa tabarakallahu ñeneen a ngi bëgg a dugg foofu rek laa yemale si wax ñëpp seeni xol sedd na te fa sunu xel itam daal na tabarakallahu xam bi rafet na yàlla yàlla barkal ko amiin amiin amiin amiin noo ngi lay nuyu di la siyaar ak mboolem mbokk yi nga nekkal foofu ak mboolem waa addina bi yaa na yàlla nangu siyaar baax jërëjëf jërëjëf Njaay Njaay jërëjëf Njaay Njaay jërëjëf Njaay daay l'islam bismillah allo daaray Islam, bismillah allo daaray lislaam dagg na kooku waaw kooku dafa dagg kon ñu mbokk jullit yi rek ñu mën woote ci euh, 212 euh, ñëwaat na daaray lislaam bismillah xam koko kooku dafa am problème euh, ñu mën woote ci 212 219 212 219 96 29 96 34 Pape Khalifa uh, ñu dégg uh, macha allah li nga wax fii léegi xam naa mhm. ni ñu mel na uh, taaw Daouda Sarr ñu ngi lay déglu ñu xale yi ñu mel na ñoom ma Faamata Seck mhm. ñu mel na ñoom Euh, sama papa Faly Ndiaye ñoom ñëpp xam naa ñu ngi déglu euh, euh, li nga wax te incha allah xam naa ne dinañ ci def seen participation soobee ci kattanu sunu borom kon ngeen mën woote ci 212 219 96 95 212 219 96 20 212 219 96 29 2122169 34 Pape Khalifa bala kenn du dugat ci ah. uh, uh, ci ligne bi uh, mhm. dañu bëggoon la laaj mhm. xaaral ligne bi xonq na ñu sét ñi ba xam lu ñu bëgg mhm. participer Dari l'Islam bismillah allo allo Dari l'Islam bismillah Assalamu Wa waaleykum assalam. waaleykum salaam wa euh, Ahmed Tidiane. waaw xalifa kooku Cheikh Ahmed tiijaan ñang la. est-ce que ñang jëm nekk ñuy euh, doomu Pape Moussa ñang bu. est-ce que euh, Tiwaawan. maamam doon jiite zawiya sëñ Babacar. kenn dootu laajte. këram fa la pantere sëñ Babacar si nekkoon fa daan. est-ce que muy am kër Tiwaawan seen kër moom la daan dal. Mhm. wallaahi. barakallahu sëñ Babacar. Mm. waaw ah, sëñ Cheikh Ahmed Tidiane. ñu ngi lay ziar bu baax. ña ña ña ña yàlla yàlla nangu ziar ña. di kontaan bu baax ci liggéey bu rafet bi ngeen liggéey. jërëjëf ña jërëjëf ña. ñun bépp information bu ñu bëgg rek asfiyahi lañ koy jotee. jërëjëf jërëjëf ñaan suba ba ngoon ci la ñuy nekk di gëstu di ci jox ñu bari nag site bi ñu bari ñoo leen ko jox fi tabarkallahu a ko moom yéen a ko moom waaw di ñaan yàlla bi àgg comme ni ko sëriñ Talla waxee rek ngeen àgg li liggéey mag ñi amiin amiin li te tal ko amin amin amin amin kontaan bu baax a a baax nag ci li ngeen li ak rajo daara ji jërëjëf jërëjëf ak tamit li ngeen yëg ni zawiya maam Alaaji Malik bi liggéey bi fi nekk te am solo yéen waral dëgg la ba préparation yi ngeen ci def yëpp yàlla na sama borom bi àggale ko. amin amin amin amin barakallahu am na ñeneen ñu war a dugg xam naa dinañ jokkoo buy passé incha allah incha allah ña ngi kontaan nañ baax bu baax nag di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen may leen gudd ci barke sëñ Babacar si amin ñang amin ñang amin ñang amin ñang amin ñang daal islam bismillah salaamaaleykum rajo bi Mm-hmm. waaw fay naa ko yaay daara na nga def. ñu ngi sant bu baax a baax kooku Abdou ah. Aziz. <laughs> waaw. <laughs> ñoo ngi kontaan lool lool lool ci suñu Babacar. yan mm-hmm. euh, yal na la yàlla fay te may la fan wu gudd. amiin amiin amiin amiin maam. nga xam liggéeyu maam ya yëpp yëpp yëpp yal na ko yàlla wàcc yow. amiin amiin amiin. da nga wane lu nga xamante ni maanaam intellectuel bi nekkoon ci Seydil Hadj Malick. amiin amiin. Mhm. ba taxoon mu nangu ba ñuy wax ci wàllu koor ga moom mu def ci xasida bu rëy rëy. dëgg la dëgg la. nga indi ko yow ci jamono ak âge bi nga toll nga indi ni lislaam mën na ànd ak jamono. dëgg la. dañuy wax ne euh, euh, euh, al islam tusaaxibu. zamaana mhm. jamban bi jamb. dafay ànd ak jamono. kottal dëgg la wallahi wallahi. ñi nga xamante ni sama classe nga xam ne sax amuñu xel mu bari. Mhm. wane nga risaala Muhammad nan la war a ñëwee di ñëw di ñëw di ñëw ba niñ ko mën a dégg ñun ci wàllu internet wàllu communication. wallahi wallahi jërëjëf jërëjëf Ndiaye yal yàlla fay la guddal sa fan. amin amin amin amin wallahi njàng mu rëy nga jàngale tey. amin amin njàng moom la moom la ñëpp jàng yal na yàlla fay la jërëjëf. amin amin amin amin ah, Aziz kooku mooy Abdou Aziz Fall. faal faal jërëjëf bu Tiwaawoon est-ce que est-ce que waaw moom macha allah di borom xam-xam. macha allah waaye làqu nag. est-ce que est-ce que waaye borom xam-xam la. ku dégg fi mu waxee rek xam ni macha allah borom xam-xam. est-ce que ñu ngi ñu ngi nag profité. waaw xaaral ñu jël kii. xaaral ñu jël kii woote. daaray lislaam bisimilah. asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulah yaay booy. yaay daara ñu ngi ziar. kazalika Pape Khalifa. waaw bu président duggee. présidente mhm. daayira Seydi Hadj Malick dugg rek. defe naa ni bu kenn duggatul sax macha allah. Euh, macha allah euh, euh, yi neex na ba pare. macha allah macha kii di wax nii mooy Soxna Khady Diop de baax. est mooy sunu présidente de présidente daayira Malick yóbbu jigéen bi. Ah, macha allah moom moo dugg noonu fas yéene joxe participation bi. yaay booy bisimilah. ñu bu baax sëñ Babacar. jërëjëf soxna Xadi jërëjëf. soxna ñu ngi lay ñaanal kontaan lool ci waxtaan bi di ko rafetlu. jërëjëf tur uyu na borom macha allah. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi lay ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram. amin amin amin amin ak xam-xam gën a yokkute yaatu. amin amin amin amin kontaan nañ bu baax ni ko yaayi daaray waxee rek jotale na matale na macha allah. Mhm. jërëjëf jërëjëf. asalaamualeykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, présidente jërëjëf yaay kontaan nañu. Euh, kon euh, Pape xalifa dégg nga euh, macha allah ñi jot a lu rafet lu ñu wax te ñëpp a ngi bëgg dugg waaye heure bi jot na pour ñu jàll ci beneen programme léegi dañ lay bàyyi rek nga ba xam lan ngay tàggatoo ak mbokk jullit yi nga xamante ni incha allah dinañ lay programme weer wu jot di nga ci dugg waxtaan ci ak nit ñi ñu fàttali li nga xamante ni mooy sit bi muy mhm. asfiyahi point org nga xamante ni lépp lu nit bëgg xam ci diineem ñu ciy jàngale euh, julli di ci jàngale jàpp ni ñuy sang jullee néew ni ñuy mhm. sangee néew macha allah site bi li ci nekk lépp ci ngëneel la kenn mënu ko wax ci rajo xanaa dugg ci site bi day gis que yéen ñi ngeen xamante ni yéen a taxawal di njabootu Seydi Hajj Malick mhm. ñu ngi leen di ñaanal gudd fan gu ànd ak wér amin amin amin amin xalifa yal na yàlla guddal seen fan amin amin amin yal na yàlla wéral seen cër amin amin amin xam li ngeen bëgg yal leen ko sunu borom defal amin amin amin ñuy tàllal nag sunu loxo képp koo xamante ni yaa ngi ci États-Unis uh-huh. loo mën dimbalee waa asfiya yi rek mm-hmm. incha allah joxe mm-hmm. ci wàllu matériel moom la ñu gën a mm-hmm. soxla incha xam naa xale yaa ngi lay déglu waa muxta fii na ñu ngi fi incha allah sa jigéen Mami Diouf ca la bokk. Ah, mhm. dinañu leen ko jottali dinañ leen ko àggee incha allah ñu taxaw si lu ñu mën dinañ ko ci def incha allah ci kattanu sunu borom ñu bàyyi la rek ba xam lan nga ñuy dénku ah, ah, Pape Khalifa. tabaarakallah waa muxtafina yooyu nga tudd léegi sëñ Mouhamadou Moustapha Sy Abdou 96 ba tey. Mhm. moo ñuy gunge di ñu defal suñu conférence annuelle ci loxoom lañ ko teg mm-hmm. mooy jàpp date bi moom moo ko taxawoon moom mi tabarakallahu di taxaw taxawaay bu mag ci biir lislaam bi mm-hmm. tabarakallahu ñu leen di sant bu baax a yaayu daara sant ñi nga xamante ñoom ñoo woote mm-hmm. di ñu ci daaray lislaam ndax ku dem New York ak ci àdduna bi yëpp xam ne tey mm-hmm. daaray lislaam àgg na foo xamante ne ba ñu nekk Sénégal sax dañuy yeewu léegi mm-hmm. toog mën koo déglu ci yenn site internet yi mm-hmm. asfiyahi point org fas yéene na incha allah gunge leen si taxawu leen si ci wàllu boobu incha allah te ñu leen di ñaanal tamit yàlla may leen gudd fan may leen wér mottali li ngeen am di ñaan tamit li nga wax léegi rek borom xam-xam yi nga xam ne mm-hmm. ñoom ñoo doon woote mm-hmm. eh, am na ñoo xam ne yàlla daf leen may ci bind moo xam ci arabe la wala ci anglais la wala ci eh, kii français la dinañu fekk contact asfiya yi lu ñu mën a bind tey défendre ku l'islam ak tarixa bu ñu ko envoyé mm-hmm. dinañ ko jël am na commission boo xam ne moo koy xoolaat suñu paree ñu jël ko diffuser ko ñi si waxtaan tamit nga xamne ay vidéo la yo xamne yéen a koy def fofu ci New York daayere yek yep ñu fexe ba ñoom envoyer ñu seen vidéo ak seen photo ak lépp dinañ leen diffuser ku ci am tamit programme nga bëgg ko def tamit en direct service commercial bi mi ngi fi nañ la ko diffuser mo xam yaangi Sénégal mo xam fo nek programme bo am ci gam gamu gàmmu le Treviso ñun ñoo jëloon khalifa bi sëñ mansou en direct ci négam wan ko diaspora ba a nekkoon te loolu ay technologie la yoo xam ne incha allah dinañ ko taxawal ci biir internet beeg lépp mm. kon ñu ngi ziara bu baax a baax a baax mm. di leen ñaanal fan may leen wér li may tëjee mooy le sëñ Mansour wax yàlla yàlla bépp immigré ak foo mënti nekk yàlla yàlla defal ñu mucc ak mos ñaari miim yooyu ci barke ñaari miimu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soxna euh, mami bu baax baax ci kii bi coordination bi mhm. ñu ngi lay ñaanal yaayu daara macha allah mhm. lii mbégte la dama seetaan benn télé Abu Dhabi mhm. jigéen ñi télévision bi ñu ngi ko jagleel jigéen ñi ñoom ñooy def tafsir alquran yi ñoom la ñuy def ay prix ma ma ne lii de tey jigéenu Sénégal tey war nañ leen gën a dooleel ci li te nag daale lislaam tey wane na ko macha allah ak ni présidente duggee yal na yàlla mottali seen mbébét ci njaboot gi bu Sénégal yàlla def fa sutura def fa xewal def fa jàmm xëpp sotti fa ndox mu sedd boole xol yëpp تابت بارك ما شاء الحاج عبد العزيز سي دباغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جرجف جاي ما شاء الله xam naa ni euh, ñëpp dégg nañu te incha allah dinañu def suñu kémtalay kàttan euh, di jokkoo ba lu ñu bëgg ci sit bi yàlla defal nu ko te yàlla dina ko def ci barke euh, sëñ Babacar ko amiin ñu lay gërëm bu baax a baax jërëjëf jërëjëf heure bi ku ne xam na ni France guddi na ku ne xam na heure bi jot ca France waaye lii lépp sa maam moo ko waral kon nag sa barke maam yal na yàlla yal na leen sàmm amiin amiin leen lakk leen fa lakk agul amiin amiin yàlla wéral leen te dooleel leen amiin amiin Moustapha sallallahu alayhi wa sallam turu euh, euh, euh, njabootu Seydi Hadj Malick gi yëpp ñu ngi leen di gërëm mm. bu baax a baax di leen sant di leen di la ñaanal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf jërëjëf jërëjëf